وأحمدك ولا زناه إله عليك وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي جعلته رحمتك للعالمين وجعلته مسك القتام لظاهر المرسلين وبعد mbokk yi ñuy seetaan te di ñuy seetaanee fii ci seen télévision des DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci seen émission bi ñu tuddee ëttub lislaam e, te ngeen baaxoo ci seetaan aljuma bu jot ci waxtu wi di leen ndokkeel ci ajjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu àq di leen baalu àq di amaat yéene bu sell pour ànd ak yéen xam nga ni ñu ngi leen doon dig na leen bu ñu yàlla maye fekkeek tal parce que nañ yéen a waxtaanee li ñuy tuddee alxitaabu daawi alaamun alaamun wa amaalun li ñuy tuddee discours daawa bi amna ay metit, metit mais amna ay mebet ñu naton nit gëstu won ci ay jàngkat yi ak jangale kat wo len ci pour ñu ñew and ak ñun jangat tomb bobu ñu jëkkon ci contacter oustaz Abdou Karim sar et Abdou Karim sar ñu xam ko muy kat di kat don journaliste yorte journal bu ñu tuddé Al Wahda et di raisu publication bi ñu comp ci jotam wuy ex koy dalal jamm diko massaw ci cionay déplacement bi Eh, contacté woon ci eh, suñu xarit suñu doomu ndey di jàngale kat di gëstukat oustaz Pape Mor jaxate moom ngeen jàkkaarloo moom it yegsi na ci jotaay bi. Eh, gannaaw bu ñu leen présenté suñu gan ñu baax ñu tedd ñi di leen massawu ci coono déplacement bi di ñaan jëf ci yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaatiima ñoo ngi yëkkati kàddu njaal comme niñ ko baaxoo def. jëmee ko ci mboolem communauté ummal islamiya bil axas ci communauté mouridisme. E ci Serigne Cheikh Mati ki nga xam ne dëddu nañ te loolu moo neex suñu borom lu neex yàlla nag nañu neex di ñaan yàlla dëkkale ko ci jannatul firdaws moom ak ay maamam te xalifa actuel bi fi nekk alxaali muy Serigne Mountakha Bachir Mbacké ñu di ko ñaanal yàlla woyofal yeen bi ci koom yàlla defal ko ci lu sut njortam ak njorti taalibe yi loolu dara ci suñu borom yàlla na ko ko yàlla defal e, jotaay bi nag e, tey niñ ko fas yéene doxalee mooy bëggoon nañ xam euh, réalité xitaabu daawa bi ci biir wuute wuute yi nga xam ne moo dox ci biir wuutekat yi bu ma waxee wootekat yi école yi wootekat yi association yi monasamaat yi arakatul islam yi kenn ku ci ne am na nooy daxwaa am na nooy wuute euh, ba mu indi loo xam ne jàpp naa ne sax euh, résultat yi moo tax mu gën a néew ñaareel bi mooy bëgg nañ xam lan moo séparé li ñu tuddee a daawa ak tablix parce que daawa woote lay firi tabliix jotal lay firi ñu bëggoon xam lu séparé ñaar ñooñu ñetteel bi bëgg nañu xam li ñuy tuddee al muhawiqat azatiya mbir mu ne am na ay rëq-rëq am na ay gàllankoor ñu bëggoon xam muhawiqatu zatiya maanaam gàllankoor yi nga xam ne moo nekk ci biir islami arachid yan la fuñ koy situé ñeenteel bi ban discours wala ban wootekat wala ban groupe moom la umma islami bi umma bi di xaar moo indil ñu discours boo xam ne dana leen satisfaire wala ba mébét yi ñu am ñu man ko caal lii lañ bëgg a waxtaanee euh, oustaz Abdou Karim Sarr ak oustaz Pape Mor Diakhaté Cheikh Abdou Karim gannaaw bu ñu la nuyoo siyaara la balu la àq baal la àq di la masaw ci coono déplacement bi kon dañ lay jox euh, laaj bu njëkk bi nga leerala ñu gannaaw bu nuyoo bokk yoo pare euh, lan mooy waaqee réalité xitaabu daxwal islami tey ci biir wuute yi am ci biir wuutekat yi بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أستاذ شيخ أحمد تيجان نيونغي لي زيارة دي زيارة مبكومي موي أستاذ جحاتي دي زيارة كرغيب دي جيتال سونيوك نجال ci suñu wayjur bi fi joge eh, ndax ummal islaam ay ñëpp a ñàkk ndax ci la doon dox ci la doon dund rawatina nag mbokki julliti Sénégal rawatina julliti waa eh, njabooti waa kër kon lii mooy sunnatul xayaat mm-hmm. demal maa ngi ñëw waaye nag lislaam toujours mu ngi ak ñun ndax gën jimbindef mbindeef bi ko indi woon dafa dem li ñu ñaan rek mooy yal na ko yàlla teeru fa muy teeru ashuhada ak saalihiina wa xasuna ulaika rafiqan euh, di ñaanal ki nga xam ne moo ko remplacé itam yal na yàlla dëgëral taxawaayam mu continuer mission bi parce que loolu la rek rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbu wa minhum man yantazir kon yal na ko yàlla deugural euh diko jale ñep nak ganaw loolu point bi nga xamne oustaz wax nga ko te moy waaqeu daawa al islamiya te mooy réalité yi nga xam ne daawal islamiya mu ngi koy dund euh, bu ñu ko buggee wax d'abord lan mooy daawa ndax daawa baatu alquran la boo demee ci alquran da nga fekk ne yàlla ngi wax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 إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار أبي نينتيون كلمة دعوة نيونتي نغنيوتي سورة فاتري دانتي فك يلا نان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير nga ñëw ci suuratu shura te foofu la ñuy em da nga fekk yàllaa ngi wax ne kabura ala almushrikina ma tadcuuhum ilayhi wallahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib kon bu ñu xoolee baatu daawa dañuy gis ne baqara be naasi kalimatu daawa buñ koy wax mooy ki nekkul ci lislaam nga di ko oo ci lislaam parce que woote ak oo bokkut euh, olof dafa naan ku la woo bula la joxul wax la wax la kooku mooy woote woote mais woote nag ci bi ma maanaa kalimatu daawa kooku moom balaa ngay ñëw da ngay xam waa ji ci limu lay woo mu xamit ci li ngay dund su ko defee yow boo demee wuy ji rek mooy nangu nga moo tax baatu wóote damay wax ne euh, bokk na ci problème yi mooy ñàkkaa ràññee lan mooy woote parce que l'islam ñetti volet la suñu problème yépp mooy ñetti vole yooyu volet bu nekk dafa am public boppam benn public bi rek moom moo valable voté première public bi mooy problème volet bi mooy volet aqida volet aqida ki nga xam ne bokkul li ngeen gëm nga war koo woo pour mu ñëw fekk si ci li nga gëm kooku vole aqida boobu kooku foofu la ñuy daawa alquran baqara ba naasi foofu la yàlla di wax woote toujours jullit bi dafay woo ki nekkul jullit deuxième volet bi mooy volet ibaadaat kooku volet jàngale la volet jàngale mooy waaz mooy waarate troisième volet bi mooy vole social mooy muamalaat suñ problème nag mooy xam xàmmee ñetti volet yi da ngay taxaw ci volet social jàpp na ci volet yaa ngi toll yaa ngi nekk ci publiku jumhuru publiku volet aqida moo tax damay wax ne min mbaru jàkka valable pour daawa kenn waru faa daawa ndax ña ca biir jàkka ji yépp gëm nañu yàlla jullee leen indi ak ku leen yokk ci seen diine kon ñooñu jàngale la waaj la laaj waaye du waare moo tax boo taxawee ci minbar bi jàkkaarloog ñi ngay wax jàpp ne ñii ñëpp pas-pas bi baaxagul nga di leen takfir loolu di leen dugal fii di leen génne fii di leen dugal fii yow da ngaa comprendre moo tax suñ problème bi ñuy dund nag mooy ñàkkaa xàmmee public bi nga xam ne moom la ñu war a daawa kooku lenn la parce que ibaadaat dañ koy jàngale nii lañuy ñuy nii la ñuy woore nii la ñuy joxe asaka nii lañuy ñuy aje yooyu ay ibaadaat la mais aqida kooku moom dañuy daawa woot nit ki ba mu gëm nga wax ko arkaanu daawa imaan ba mu wóor ko ba leer ko mu d'accord ci su ko defee mu dem ci deuxième volet bi te mooy volet ibadat mooy pratique su ko defee nag bu yi baaxee pas-pas bi bu baaxee euh, volet ibadat bi baax société bi bu ca eggee dafay dal di rafet parce que société bi mooy axlaax moo tax yonent daan wax ne bu istu li utammima makaarimal axlaax boo xoolee pas-pas bi xool ibaadaat bi li ko tax a jóg yépp mooy axlaax ñun nag suñu problème yépp du aat yi mooy problème mu axlaax amuñu ci dara li ci ëpp te taa nag bu fekkoon ne comprendre nañu yow parce que euh, suñu kilifa dafa naan wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara cest à خيره موي يو بيمو اندات يو بيمو اندات باسكو يو دافا ام سولو اخلاق دافا ام سولو اخلاق دافا ام سولو موتاخ القران دي وخني ومن احسن قولا ممن دعا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين نتي فولي لا قولا موي واحد جي ورا يو عملي صالحا وجف جي دافا وري يو خامني وقال انني من المسلم لسان حال مك لسان المقام بو مقال بوكو جاكار لوغا خامني واجو باخاغي يا يارا ماغي كون دونكو سونو problem آه، بندون تشخيص سونو واقع تي دعوه دانيي غيس دعوه بي problem بي ييب موي نياكا راني خطاب بي خطاب بي كان غاكوي جوخ mbooloo bi nga koy jox wala mbooloo bi wala mbooloo bi bu fekkee ne yow da nga ko war a jox kii xamal ban nga ko war a jox dañuy wax ne li kulli maqaamin maqaal mooy mbooloo bu nekk rek am na langage boo war a wax ak ñoom kon euh, loolu laa doon wax ci point boobu mhm. euh, ba ci kanam asalaam jërëjëf euh, oustaz Abdou Karim Sarr Abdou Karim bu ñu la déggee mooy feeñalal nga ñu ne waaqi xitaabu daxwa isilli xilaafaat yi départ bi mooy da daawa mooy lan xamal nga lan moi daawa mel ni borom bi tabaaraka wa taala jox na ko importance trop ndax rotal nga rotal nga ñi ay saar yu bëri yo xam ne ñëw na ci andil nga ñu ko ci andi ko ci sóoratu andi ko ci sóoratu ba ila masa allah benn bu ci ne baatu daawa ñëw na ñu takkaraar ko fa ak mara répété ko ay yoon répétition nag jàngalekat yi dañuy wax ne euh, méthode la ci pour nit ki mën a xam kon yàlla it bu demee bay répété lëf la muy répété ñor na ko kon daawa kon lu am solo la ci suñu borom tabaaraka wa taala wan nga ñu waaye am na problème bu am ci biir du'a yi ba tax wuute gi am ci discours bi mënta jëmal la war a jëmal mooy ñàkk ràññee booy def lëf te ràññeewu ko mën naa am résultat yi mën naa yéex wala mën naa bañ a bëri nga ne war nañu ràññee daawa mooy lan ràññee. aqida mooy lan ràññee ibada mooy ran mais boo bëggee jël yépp boole daawa aqida ibada dëxëñ ko ci benn loolu mbaxal lay gën a niiru xam nga ku toog mbaxal ngay boole gerte ak lépp def su boobaa mën na bañ a nekk nañ ko bëggee nga wane ne wàññ ràññee li ñu tuddee mu amalaat jëflante wax nga ne miin baru daawa suñ ko seetee min baru juma du min bar pour daawa ndax daawa bu la déggee mooy dem ci ñële nga xam ne xamaguñ lan mooy yàlla wala am na lu ñu samp jëmmal ko ne mooy seen borom te loola du seen borom nga woo leen ci ne leen lii mooy diine bañ fekk si la ca ñooña la ñuy war a def daxam buñ la déggee mais ki nga fekk ci ki nga dikk ci jumaa ji yéeg ci minbar bi fekk ko mu jàpp toog di déglu discours bi kooku yëggatoo foo ko wax naan ko yow juwoo jullit ak sa pas-pas baax na wala baaxut nga ne kon waruñ toog ci minbaru jumaa di am ñu ñuy dugal ci diine ak ñu ñu cay mu mel ni eh, bari na jàkk yu bari tey ci loolu la ñuy xëy ci la ñuy gontu ba parfois mu indi ay jafe-jafe yu ci biir jàkka te fekk imam ba bu ñu la déggee moo matul imam kon ndax bu matoon imam dana xam ban discours waya liix mu war ko wax ak ñoom jàkkaarloon feeñal nga yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bi ko boromam yónnee dafa dikk déclaré ne bo istu li utamima makarim al axlaq yàlla daf maa ni pour ma mottali njolaxtani jikko yi te pourtant jullee nga fa koorang fa ajang fa mu mel ni julli du wér koor do wér aj bu sa jikko baaxul nga nattal ñu ne wootekat yi gën a bëri ci ñun seen jikko baaxoon dañoo lajj ku sa jikko baaxoon na nga bëgg a defar ay jikko kon jéyee ngay def bay Oustaz Pape Mor ma dikk ak yow ci même question bi euh, bëggoon nañ xam réalité discours daawa bi euh, noo koy jàngatee ci biir wuute yi dox ci suñu biir ñun wootekat yi jërëjëf euh, Cheikh Tidiane bi tey aouzu billahi samii alalim min alcheytani rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دي لنيو شيخ تجان بيتي دي نيو مبوكمي عبد الكريم سار دي أم مكتي تيوات في نختي كرجي سنو كره woo nga ñu fi ay yooni yoon ñuy rafetlu tamit fu nu tollu liggéey bi ngay taxawoo ndaxte nag mbir bu nu bokkee di ci yëngu dan koy topp di ko saytu kon ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan yàggal la fi émission yi nga fiy taxawee muy rajo bi muy tele bi ñu ngi koy rafetlu nañ ko bokk ñaare bu ne nit la muy def jaar na yoon di naan laaj leen ndax ña ca nekkat ko wax mhm, mhm. bu ne maçon bi mën naa tabax di naan ndax ay mbokki maçon ah, ñoo ko wax kon ñu bëgg a wax ne rek euh, ñi lay topp rafetlu nañu su ko defee tam du ñu jàll lu dul ñu nit ñu daal di jaale mhm. ki nga xamante ne mooy alxalifa Cheikh Matiley mi fi jóge ndax ci ñun la bokk umma bi moo ñàkk biir armée ab soldaar bu faatoo di naan ñoo ñàkkale mm-hmm, mm-hmm. ñu nit bu ñu yëngu ci wàllu diine mu doonoon ci sunu njiit su génnee àdduna tam ñu ngi koy jaale mbooleem xeetu umma islaamiya ki nga xamante ne tamit moo ko wutu ngi ñaan yàlla mu may ko taxawaay bu mu àggalee mission bi bu loolu weesoo dang ma laaj ci wàllu daawa ak jafe-jafe yi xëy na te mooy woote gi te jublu ci ñi koy def suñ ko waxee nag day gën a jege sama déggin ci mooy waaraatekat yi noonu laa koy gën a déggee comme ni ko sëñ Abdul Karim waxee mooy woote waaye nag dañuy gis na que këdul jullit din koy woo din koy woo moom it ci diine ji mais ca koy woo mu ñëw ndaxte nag uddoo ila sabili rabbika bil xikma wal mawizati alxasana dan ne woon woo leen doomu aadama yi jullit ñi ci yoon wi nga xamante ne moom la sunu borom subhanahu wa taala bind ci lan nga woote ko ci ak dal nga woote ko ci ak xarañ nga woote ko ci anam bu rafet ndax ñi ngi woote anam bu rafet loolu problème la ak tamit daawa boobu ci boppam ana kan moo ko war a def ndaxte bu fekkee ne dama jàpp ne kii woote mooy kii jàngale bu boobaa nag bu dee noonu la demee kay jàngale dafa am ay bagaas ay mawadd yoo xamante ne moom la war a jàng te mooy woote gi dafa am yoon su fekkee ne maa ngi jël kii woote ma def ko ne kay jàngale bu boobaa nag jàngalekat nag dafa am yoon woo xamante ne ca nga war a jaar am loo war a jàngata mooy yoonu jàngale ndax waraate du lu dul ci sunu jamono ji ngay jàngal nit nga jaare la ko ca tele ba wala nga jaare la ko ca rajo ba kon jëmmi jël mbir di ko joxe muy turuqu tadris kooku moom ay mabadi am la yoo xamante ne jëmmi jàngale ñooyam léegi nag mu des jamono ji li nu seetlu mooy ka nga xamante ne ma ngay woote suñ demee ba gis ci ay jafe-jafe rek mooy est-ce que kooku war naa woote loolu problème la ci ak tamit la muy woo ca nit ña la muy woo ci nit ñi loolu mooy lan ndax xam na ko iza amila ahadukum amalan fal yutqinhu loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax bu fekkee ne am na kenn ci yéen muy taxawee benn mbir na ko maîtriser est-ce que ñi nga xamante ne ñooy woote ñooy waaraate est-ce que mbir ma jàng nañ ko maîtriser nañ ko su loolu amul rek problème day am mi ngi mel ne métier bu mënti doon heure boo ko santee koo xamante ne mënu ko mu yàqal la ko noonu tamit noonu la mi nii mel dinoo jàpp ne euh, waaraate gi woote gi waruñu koo jàng amul yoon aha kay daf ko am dafa am ay mabaadi am ay yoon xam nga fi mu ne nii léeg nga woo benn liggéeykat mu am lum la defaral xarañu ca yàqu ko ngeen toppoo coow la yàqu yàq na lii mënu ko fay ma nangam woote gi tam ñiy woote dinoo war a làmboo dégg nga maam xam-xam ba làmboo dégg nga maam yoo xamante ne moo leen ciy dimbali lil asaf loolu bu amee it dama ne la soo déggee mu am problème loola ma nga ca mooy ñàkk ko mën ak tamit ana ban chaxsiya ban nit moo war a taxawee loolu xam nga lislaam ci boppam dafa bëgg a wax ne yow mi nga xamante ne yaay woote avant tout mooy chaxsiya bi yow nit ki danoo bëgg a wax ne la li ngay woo nit ki day fekk yow yaa nga ci kon comportement bi nga xamante ne moom la oustaz Abdou Karim doon wax mooy jikko yi ci boppam il faut que ñu xam sa jikko maanaam dafa doon métier boo xamante ne même bu fekkee ne xam-xam baa nga fa waaye jikko jatam parce que la ngay woote soo génnee lu mel noon din koy xool ci yow te nag li ma taquluna maa laa tafalun bu boobaa day daal di dikk kon euh, yi ci aju dafa bari te moom mooy avant nit ki di woote préparation ba ci aju jëmmi nit ki condition ya mu war a nekkee bay soog a dugg ci terrain bi li ci ëpp foofu la mbir ma dooree problème bi te mooy kii woote bari na koo xamante ne ma ngay woote te waruta woote ndaxte la muy woote jàng ko xam nga problème yi bokk na ci euh, dund nañ ko ñun ñëpp da ngay génn léeg-léeg am ko la laaj waaw din maa wax lii ci lislaam ma dégg benn waaraak tekat mu ni ma lii mbir mi jaxasoo kii boo waxee lii kii wax li léegi waa jooju ban la ciy jël bari waat na lu ma nit ne ma dégg naa ñu ni ci rajo bi ci télé bi nang man la ku la ko wax nga ni ma ci benn waaraatekat laa ko dégg <laughs> te la muy wax day doon loo xamante ne danga naan lii kenn ñemewu ko wax ci rajo ndaxte day safaanoo ak dëgg léeg-léeg ñu wax la rawatina ci wàllu ahkaam fiqhiya dégg naa benn waaraatekat nee na nangam bi bis bu set koy gàllankoor ba ci yow mi muy keneen nee na nee nanu nee nanu mhm. problème boobu xam nga bu doon problème mu ixtifaat ixtilaafaat la mhm. fil mazahib ñu xam maanaam juwoo ci li nga xamante ne mooy kuréelu diine yi fi nekk te bu boobaa yow miy waaraate dañuy bëgg nga préciser ko dañuy bëgg nga leeral ko wane ne kat ngiiru maliki lii la wax ngiiru shafii lii la wax mhm. te nag Euh, bu nu delloo ci wàllu njàngale ba tey sénégalais bi ngay jàngal loolu da ko dul soxla daanaka te mooy soxlawul ay ixtilaafaat parce que yow yaa ngi jàngal nit ki te boo demee ci mabadi euh, euh, taalim waxoon na la ne booy jàngale mina sahla ila saab da jël lu yomb di ko indil nit ñi di dem di wuti loo xamante ne moo jafe ñu dégg ko ataruj boobu tamit xam nga kay waaraate war na ko xam ixtilaafaat yu bari yooyu nga xamante ne euh, léeg-léeg da ngay jàpp ne loolu la danaan la oustaz bi wax na ma lii bii wax na la lii d'accord loolu mën na am mais dafa am yoo xamante ne ixtilaafaat waru ci am dafa am yoo xamante ne leer na Quran wax na ko sunna wax na ko yooyu nag mooy problème bi yooyu la ñuy wutee da ngay dégg ñu ne la nangam ci koor nangam ci aj nangam ci julli ci yoo xamante ne benn ixtilaafaat amu ko waa kooku kon problème bi mooy ñaar ñooñu nga xamante ne ku ci nekk dangaa wax ci euh, dégg nga maam euh, euh, mbir moomu muy wàllu julli ngeen wuute waa ana moo ci am dëgg léegi nag ki koy dëgtal ban la cay jël problème ma nga noonu kon boog war na noo seet ki nga xamante ne moo war a waaraate na ragal yàlla na ko def aussi ngir li wëjjixi laa boobit problème la mooy maa ngi yéen nit ñi maa ngi wooñ nit ñi waaye defuma ko tan lillaahi loolu it bari na fi hmm. maa ngi woo nit maa nga toog ca tali ba ba di leen woo maa nga toog ci rajo ba di leen jàngal mais defuma ko ngir dégg nga maam lillaahi mais dama ko def ngir fis dama ko def ngir yeneen parce que tamit amaan na beneen problème mhm. mun bi mhm. mooy risaala bi ci boppam contenu bi nanu xool li mu làmboo mooy lan li ngay joxe loolu it nit ki da ko war a xool du loo ñëw rek jékki-jékki joxe ko li ngay joxe bu fekkee ne da nga woon nit ñi ne leen déglu leen ma ñu lay déglu nga leen di waxal sa bopp di la di leen waxal di nga maam euh, say maam ak lu aju ci yow xam nga maddu mun boobu continue boobu baaxul mm-hmm, mm-hmm. kon liñ leen di jox tamit risale bi loolu it doon na ci gàllankoor ak ki koy joxe mm-hmm. ak tamit ki nga xamante ne mi ngi koy def comme ni ma ko waxee sànq surtout euh, alhadaf lan moo waral ngay woo nit ñi woo leen ci diine fàttali leen ngir yàlla mais bu leen woo ngir ngistal bu leen woo ngir kii léegi tamit ak leneen problème bi mooy dangay gis na que léegi bari na ci waraate bi koo xamante ne ma nga fa toog dégg nga maam euh, jële émission ngir lan ngir tontu ay doomu aadama ngir xuloo ngir xeex xam nga nag diine ci boppam bu fekkee ne da nga ciy woon nit ki raxaat ci yooyu roof ko ci biir gis nañ ko léegi koo xamante ne biir waxtaanam da lay wóor ne ma nga ca kaneen xuloo ba nekk fii coow la nekk fii bu boobaa lanu taxoon a jóg ñun ñu santoon ñu ko te mooy na ngeen jàngal jullit bi woo ko ci sama yoon man yàlla ci anam bu rafet woo ko ci teggin kon lan yi woote tamit màdd ba muy matière bi dafa dem ba jaxasoog yu baree bari tontu yaa nga ca biir plateau yi ak tamit xam nga nit ki duma ñëw di ko woo di wax ak moom di ko jàngal lu aju ci wàllu yowmal xiyaam ma nekk fa di ree nekk fa di kaf xam nga tamit euh, yow mi koy li nga koy jox tamit pour nga jox ko importance dëgg dëgg dëgg am na noo walla mel léegi jël mbir mi di jàngal nit ki mais ca njàngale ma nit ki léegi dafay dem ba ne léegi moom la nga koy jox soxlawu ko mais comédie bi am na koo xamante ne ma ngay taal telem jàppal ma dafa neex daa am xorom léegi seetatul yow la nga koy jox daawa ba la taxoon nga leen di woote amatul sens mais jëmm jë ya muy indi muy poma léegi day mujj nag ah loolu problème lay doon kon daal sëñ Cheikh mhm. ci gàttal mhm. euh, mën naa la ne wàllu daaw bi bari na problème lool te nag li ci ëpp solo ma nga amee ca départ ba kay toog di woote kooku foofu avant muy woote kooku lan war a xool mooy kan Eh, jërëjëf oustaz Pape Mor Diakhaté bu ñu la déggee feeñalal nga ñu ne borom bi tabaaraka wa taala dafa teel a rëddal wootekat yi yoon wu ñu war a jaar maanaam tegal leen mën aj méthode uddu ila sabili rabbika bil ma wal mawisati al hasana nga posé question ne ndax ñoo ngi woote def maw isa hasana jaar na laaj ndax woote bi rafet na ndax ñoo ngi koy def ci ma loolu yëpp mel na ni ñun ñuy woote ñoo ci war a mën a tont wane nga ne daxawa bi it kan moo ko war a def loolu it ñun ñuy woote ñoo ci war a def jàpp naa ne bu ñu seetoon tey sama classe gu bëri tey dañoo war a dem jàngi mais waru ñoo woote tey nag dañoo jël lépp xaj ñi war a jàng ak ñi warte woote yëpp ñu teg leen ci benn groupe ne ñii ñooy wootekat yi kon mel na ne li indi rëq-rëq bi ci loolu ci la bokk feeñal nga ne euh, buñ demee ci wàllu daxwa dafa dëppook wàllu jàngale te jàngale dafa am lu ñuy tuddee turuqu tadris méthode bu ñu jàngalee méthode boobu nag dafa am méthode boo xam ne boo ko tegee ci bi nga xam ne mooy méthode pédagogique xale bi nga jàngal dafay daal di xam léegi ràññee ko mën a am diplôme boo ko tegee ci méthode bi baaxul nag mën nga ko jàngal cent ans dimanche te du jëriñu loolu nga ne moo am ci daawa bi dafa am yoon ndax yàlla teel nañu wax bil hikma wal maw'izatil assana boo ne fa yal bandik ñaar yooye nag jaar sa yoonu bopp mën ngay daawa cent ans et dimanche te doo am résultat eh, war nga ne am na muskila jikko comme ni ko Cheikh Abdul Karim waxee léegi jikko yi eh, god dotteeku na te ku war a defar jikko yi nit ñi sa defaruwoo kon mel na lu baax maanaam bu ma bu ma boo ma waree defar wala ma war laa defar te man defaruma nga séentu ci man ak defaru kon mooy doo baax wane nga ne daxaw bi bokk na ci ba tey li indi coow li mooy xilaafaat yi am ci diggante école yi mazaib bi manoon lu mënoon a ñàkk la ndax eh, kuy jàngale la gën a yomb nga war a jàngale mais waroo jël la gën a jafe Eh, parce que xilaafatul masaabi soo demee ci booy jàngale sax ci njàng pédago en tant que académie boo feeg yëguloo ci université duñ la ko jàngal nga jël ku war a toll ci université ñu de ko jàngal Shafi'i lii la wax Maliki lii la wax Hanbali loo la wax nga dikk ne ko daa ci ab télé wala penc mi jàngale mooy da nga yokk xar mi kawar lëndëm nekkoon na fi gaa mais nga yokk lëndëm ndax boo paree nit ñi lan la ñu jàpp ci yow duñ ko xam wax nga ne daawa bi mat madmun bi eh, des na risaale bi jotut matière lañ ciy wut léeg-léeg ñi koy def ñu gën a bëri ci sant Cissé Touré luñ ci am lañ cay wut wala ak siiwaa nga man lañ ciy tudd maa ko defee nii ba maanaam bëgg dugg ci star yi maanaam doxaan yi bëri tey fi naa star lañ def seen bopp. ko defee loolu it bokk na ci li indi jafe-jafe bi ci des feeñal nga folkloriser daawa bi daawa bi léegi discours daawa daf daa am ragal yàlla gu cay feeñ wéeru tegum jëm sukkandu ci ay tex mais tey dafa dafa wàcc ba agsi ci wàllu folklore bu ñu la déggee nga xam ne léegi kiy taal télé bi sax dafa wax taalal ma télé ma seet ndax imam Cissé moo fa nekk ndax dafa saf xorom seetaan waxut maa ngi seetaan imam Cissé pour lu ma jariñoo imam Cissé daa saf xorom la lay wax imam Touré dafa neex nu waaraat waaraati dafa saf xorom mais kooku jariñ taxu ko caa jóg reetaan moo ko ci tax kon mel na ni euh, problème am na te problème bi ñu na mbir mu nekk nag dañuy nangoo ne ñun ñoo ñoo defut suñu warugar ñàkk a def waru gaar ga nag dafa aajo woon tanqiya tanqiya mooy teqantal ñi ci war a wax ñu wax ñi war ta wax xam ne waruñoo wax mais boo jàngee ñaari addis wala ñetti addis rek ne yonent bi moo ne eh, baliqu anni walaw aaye jotal leen donte ci man benn aaye la loolu moo di li gën a bëri tey kon nag ah, problème am na tayib Cheikh Abdou Karim eh, ma del si at ci yow gannaaw boo xamee ne tomb bi xaw nañ ci yàgg mais jaar na ko ndax am na ci lu bari lu ci leere bëggoon nañ xam lan moo séparé daawa ak tabliix parce que wan nga ñu fii léegi ci départ ne eh, mimbar duñ ci toog di def daawa bon wax nga ñi war a def waa mais daawa dañ koy jëfandikoo ñun en tant que ay wootekat tabliix ñun ñi di ko jëfandikoo en tant que ay wootekat lu séparé ñaari baat yi waaw dañuy dellu tuuti rek eh, xam nga maa ngi doon wax daawa luxatan mooy woote waaw ne eh, woote yow mi woote dafa am koy woo di ko oo ci li nga ne kon daawa daawaahu mooy naa daaxu mais dafa am istilaax mooy lan lañu ñu namm ci daawa daawa fànn la ci funoon yi mihna la métier la moo tax fardu kifaaya la du fardu ayni daawa fardu kifaaya la wal takun minkum mooy na am ñoo xam ne dañuy spécialiste. kon warul ñëpp. warul ñëpp. day dafa war a leer ne. du ñëpp ñooy du'aat. doonte loolu moo am. c'est-à-dire jullit daaya la ci boppam ci comportement ci dundinam ci waxinam ci jëfinam ci sulookam. daaya la ci ndax royukaay la. ndax ba ñu ne kuntum xayra ummatin loolu rek wane na. namosij lañu euh, euh, e, exemple lañu kon jullit amatul droit def lu bon amatul droit wax lu bon amatul droit dox lu bon moo tax bu ñu nee diw day jullit nañu ne ak a baax loolu mooy adresse bi mais nag wàllu daawa mooy métier bi nga xam ne moom la oustaz doon wax mooy métier la dafa am lu mu laaj bokk na ci li mu laaj mooy dégg langue bi nga xam ne yàlla wa maa arsalna min rasulin illa bi lu xaw mi il faut nga déggoog ñi nga xam ne yaa ngi leen di woo déggoo googu nag mooy message bi il faut nga seet na koy yóbboo ba ñu dégg ko ba ca tegu mooy euh, daawa bi nee naa la métier la fànn la boo xam ne dafa soxlawoo spécialiste parce que euh, booy xool ñun li ñuy dund mooy kenn ku nekk te aaya bi nga xam ne wax nga ko léegi mooy udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati al xasana gis nga baatu udu mooy daa'i nga mooy la udu mooy wooteel ba fexe ki nga xam ne moom moo nekkul ci li nga ne nga woo ko ba mu fekk si la waaye nag bil xikmati bil xikmati bu ñëwee ba egsi nag la des mooy mawiza loolu mooy palaasu minbar mooy palaasu jàkka mooy palaasu dars yi mooy palaasu grand place yi foofu dañ fay jàngale gannaaw woo nga ko be mu d'accord nangu laa déglu parce que lislaam dafa dafa ñeme boppam lii laa man lii laa yow indil li nga xam ne loolu nga haatoo burhaanakum in kuntum laa tu'minuun noonu fekkee gëmu leen li nga xam ne moom laay wax d'accord leen ci indil say preuve lislaam dafa d'accord ci loolu du force kenn du forcer kenn parce que lislaam pas-pas la moo tax mu ne laa ikraha fi diini laa ikraha fi diini mooy pas-pasu doom aadama yi kooku yàllaa ko jox liberté mun naa laa forcer nga woor mun naa laa forcer nga nga julli mun naa laa forcer nga nga dog mun naa laa forcer nga waaye munuma laa forcer nga bañ loo bëgg wala nga bëgg loo bañ moo tax pas-pas boobu nag la yàlla soxla pas-pas boobu moom la yàlla soxla moo tax mu ne innamal amalu binniyaati mooy la nga fas wa innama li kulli mri'in ma nawaa waxul ne ma amila de maa nawaa la nga la la nga la nga dëxëñ ci sa xol loolu la lay fay su ko defee yow mi nga xam ne yaa ne da ngay daawa ji d'abord sa pas-pas moo valable wuute mënu fee ñàkk parce que wuute yàlla binde noonu inna jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu c'est-à-dire fa ñuy wuute kooku naturel la mooy ci madaris fikriya la mais ci li nga xam ne mënuñ cee wuute mooy aqida bi pas-pas bi mënuñ cee wuute mais mafhumul ibadat yeeg naka naka kayfiya beeg yooyu kooku ay madaris la fi lañ ko fekk boo demee ci téere yi nga xam ne ñoo fi nekk sax ba ci mazhab imam malik da nga fay fekk xilaaf yoo xam ne ci biir mazhab bi mazhab boo dem da nga fa fekk xilaaf rawatina nag ñi nga xam ne ñooy école yi kon donc yooyu dañ ko war a xam démb dañu dem euh, dañu dem su benn tudd ak suñu imam mu wax fa benn kàddu bu am solo mu ne ñun Sénégal yàlla dafa am lu mu ñu may te mooy jétaay bii tey tukulóor baa ngi fi séeréer baa ngi fi olof baa ngi fi saraxule baa ngi fi lima lima lim ma ne nag loolu la ma ca am importance mooy tanawu boobu ma ne loolu mooy lislaam lislaam tanawu la yàlla binde noonu problème bi nag mooy li ëpp ci ñun duñu ay duaat dañuy duñuy daawa dañuy diaaya hunaka farq bayna daawa wa diaaya mais bala nga maa indi loolu leeral moom ndax euh, tabliq maa ngi ñëw daawa hmm. ak diaaya bokkul daawa mooy lii ñuy wax mooy nga woot nit ki dugal ko ci lislaam diaaya nag mooy man fii laa nekk naa ko propagandal te ku propagande nag provoqué ku propagande provoqué parce que da nga jéem a jël sa marchandise ne moo gën bon la ca des. kenn keneen def luñ mel noonu. waaw su ko defee. l'islam buggul propagande. diaaya amul ci l'islam. daawa moo am bil iqti masalan bil qanaa da ngay ñëw uysi udxulu fi silmi kaffa da ngay ñëw dugg d'accord wala. nga génn nga génn. su ko defee kon propagande bi ñuy def bokk na ci li nga xam ne moo indi musa waqe bi bi ñuy dund. waaw ndax koo ci gis bu waxee nga daal di xam ne kii euh, fële lay propagande wala fële te yooyu léttu ettu islam ñëpp a ci xej ñëpp a ci xej kenn ku nekk euh, boo fekkee ne biir l'islam la rek ñëpp ci xej. waaye bu fekkee ne da nga fexe dugal ab néeg ci ci ci ci kii rek yow néeg ba dafa am ñu mu mun a attan rek ak ñoom comme joxewoon naa ko benn exemple suñu benn mbokkum daara moo joxe woon exemple bi mu am solo lool mu ne l'islam bi dafa mel ni benn tante tante boo xam ne dafa tante ne ñëpp jullit yëpp kaay leen ñëpp dal di ñëw ñu ne bi ñu ñëwee nag am ñoo xam ne da ngay ñëw am benn waa ju ñëw indi parasoram daal di ronu tante bi ba pare taal parasoram ñu ne ko a ah, sëñ bi tante baa ngi nii mu ne dee damaa bëgg suma gaañi bu ñu ñëwee xam fan laa féete ñu ne ah diwa nga ne li ñu daal di ko fekk ci tante ba ci parasoram kale def noonu kale def ñu dem ba tant bi yëpp nekk ay parasor parasor yooyu kon jaratul tante jaratul tante cest kon li mu amoon li amoon solo rek mooy ñun ñëpp kenn ku nekk ñu xam ne kële ci ëtt bi la kee ci ëtt bi la ñun ñëpp ñoo bokk ëtt bi tabliq ak daawa wax naa la ne daawa pro métier la fànn la bi maana mihna la tabliq nag muhimma la hunaka farq bayna tabliq bayna al mihna wal muhimma mihna mooy métier comme ni médecine nekkee métier noonu la daawa nekkee métier xam nga médecine mooy tibbul ab daan waaw masalan yaram bi euh, der bi deret bi ak appareil yi li muy faj yëpp mooy yooyu mooy naka la ñuy def feebar bi nekk ci der bi wala feebar bi nekk ci deret bi wala feebar bi nekk ci appareil yi moo xam yax yi la moo xam euh, yooyu dafa am spécialiste yoo xam ne boo demee yooyu la ñuy jàngale ñu jël nit xaaj ko ay ay génn wal kenn ku nekk am ci loo kii daawa bi itam dafa am ci loo xam ne dafa laaj spécialiste waaw walaw laa nafara min kulli firqatin yàllaa ngi wax ne waxuma ne ne ñépp jàng fiq waaye nag na am ñoo xam ne dañuy jéem a spécialiste ci loolu su ko defee buñ ci géejalee nag be xam ne xam lañ ci lañ ci war a xam ñu dellu nag jéem a jàngale ji loolu su ko defee am maa nag tabliix tabliix mooy dangay ngay dégg benn xadis ne ah xadis bi yonent a ko wax nee na yonent sallallahu alayhi moo ko wax nga jël xadis bi ne yonent nee na nangam ak nangam da nga ko jot lii rek moo tax yonent daan wax ne bëri na ku yenu ab xadis yóbbu ko di ko jox koo xam ne moo la ko gën a dégg sax kon mokkal xadis ñaari xadis ñetti xadis taxul nga nekk daa daaya dafay nekk profession la boo xam ne il fok nga xam ko parce que ala basira foog nga woote ci basira basira mooy xam li ngay woote xam ngi ngay ki ngay woo xam ni nga koy woowee parce que tadaruj boobu nga xam ne mbokk bi wax na ko lépp xitaabu alquran la sangara ñeenti aaya wàcc na ci ci ci ci ci ci ci arab ñeenti aaya yoo xam ne benn bu ci nekk dafay tere waaye nag نموي ترى اتاب بار اتاب اتاب بار اتاب كنت تدرج تدرج بوبو القران لا باسكو القران نيتي خطاب موتي نك خطاب موجه الى المؤمن خاصه فقط موي كادو بيغا خامني جوليت بلا يالا دي وخال موم رك اك بيغا خامني ييفر بي رك لاي وخال نيتل بي موي بيغا خامني نييب لاي وخال واو بوم دو شانجي متحرك الى يوم القيامه ñetti xitaab yooyu ñoo ci am su ko defee nag yow mi nga xam ne yow yaay wax di yore xitaabul euh, daawa war ngaa xam ñi ngay waxat muy public bi ñu doon wax mhm. parce que ñun suñu muskile yépp mooy ñàkk xam suñu public ak propagande waaw publicité ak public waaw jërëjëf euh, oustaz Abdou Karim Sarr bu ñu la déggee mooy leeralal nga ñu ne. Mhm. Euh, daxwa ak tabliix nga dikk insister ci ne daxwa. Mhm. métti la. daxwa fànn la. daxwa risaala la. nga ne daxwa euh, attem fardu kifaaya la. fardul kifaaye ni nga ko jàngee ci téere yi mooy isa baax du saqata anil baaqina mhm. bu ko ñenn taxawee wàcc nañu ci des kon waru ñëpp kon bu ci ñëpp loo rek yàqute daal di ñëw dafa am benn groupe bu ko war a def benn groupe bi ci des dem defi leneen bi ko war a def dañ ko war def xam ne métier la métier da nga koy jàng mokkal ko ndax métier moom war a doon dafa laaj bil itqaan euh, nga leeral ñu ne euh, yonent bi bam ñuy ko ñu alquran caricaturé nañu kuntum xayra umma euh, xayri ya googu lañ war a matee fuñ mën di doon boo demee ci jàngalekat ya comme ci xayru umma nga doon ngaa war bokk ci jàngale ba ca gën boo demee ci waarekat yi nga bokk ci waaraatekat bi gën boo de ci borom métier yi waxal luñ mel mais kon boo nekkee ci jàng duaa te bokkoo ci duaat ya gën kon xayree gi tàbbiwu nga ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boromam wax na ko ci alquran ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi musuma yónni benn bi yónnantu lu dul ca làmmi na ñam jëm laa koy wax mu waxta kon fooy mën di demit war nga xam nooy waxee ak ñoom wax luñ la mën a déggee nga wax ne forcé bokku ci imposé wu euh, naa ko wax toujours ne problème bi ñu gën a am ñun mooy ba saxal baa ma sulli dem ci àll ba di bay dugub yàlla ji taw nga sotti sa dugub ne toob bi day sax léegi wala ma sulli lu sax nga sulli ñàkk dugub ñàkk doo am gàncax loolu dafay am ci woote bi mooy ikra bi nga tudd faw nga forcer nit ñi ne man man aj bi may wootee école bi ma nekk groupe bi ma nekk faw nga gëm ne ñooy ñooy ñoo représenté yonti yàlla Muhammad wala ma génne la ci diine ji ku la wax loolu feeñal nga ba tey ne yéen def ñoo xam ne inamal ahmalu bi niyaati wa inama li kulli imrihin ma nawa kon yéene boobu kenn mënu koo daggal ci nit ki nga feeñal ñu na am na lu ñu war a réparé nag lu ñu raay ràññee diggante daawa ak di aaya woote ak pro campagne nga xam ne waa ji dafay jéem a campagne ji jéem a dégg nangam ak nangam bokkut mu bari ci ñun tey ci loolu la dox nga ne tabliix nag bu ñu ko waxee mooy muhimma la benn yitte la boo xam ne dañ ko war a dem mot doxi yitte booba daawa métier la comme ni docteur bi tiime nit ki di ko faj ci wàllu yaramam nga ne kon daawa dafa aajo ay spécialiste waa ji jàng ñu ne kat spécialisé ci wàllu charia ñu dékk ko ci charia mu war ca wax kii ñu ne kat spécialisé ci wàllu éducation tarbiya wa taalim ñu dékk ko ci mu war ca wax mais wootekat bu dikk boole lépp Sénégal yi nga koy gisee Sénégal nga gis woote wootekat boo xam ne lépp la xam fii nga gis wootekat yi sant Cissé Touré lépp lañ xam loo wax ñu ne seex bi nangam loo wax ñu ne sëñ bi nangam te nit ku xam lépp yàlla bindu ko yàlla kenn mënu ko féetee fu ne yàlla dafa am foo koy féetee keneen féete ko feneen waaye fépp mën a <laughs> ah ma du mën a nekk tey euh, Pape Mor ma del si yow bëggoon nañ ku ñuy ràññaleel euh, diggante lu séparé euh, bay na daawa wa tablix jërëjëf <clears throat> diggante daawa ak tablix comme ni ko mbokk mi Abdul Karim Sarr waxee dana laaj ñu firi ko ci olof parce que ay baatu arab la mhm. bala nga ko ràññee daawa moom mooy woote mhm. tabliix mooy jottali kon ñu xam ne ñaari baat yooyu lu nu bëgg a séparer mooy woote ak jottali jottali euh, loo xamante ne jotul mhm. day xaw a bëgg a leer jottali loo xam ne jotul. maanaam lu jot kon c'est pas la fan ñu ko <laughs> jottali day gën a sori. <laughs> Eh, eh, ma goog woote nag mën nga woo ki la jege mën nga woo tamit kila la sori. ci gàttal boo demee danga fekk ne olama yi ñaar yooyu. danoo def ne. ad daawa juz'un min at tabliq at tabliq aam min ad daawa loolooy lan. maanaam daal euh, jottale moom moo gën a matale ci woote te dafa mel ni ki jottali mënoo ko def lu dul woote ma nga ca parce que dinna la at tablir lil anbiya yonent yi ñoom ñoo jagoo li nga xamante ne mooy tablir mais nag boo demee ci daawa yonent yi euh, danan ko def dégg nga maam ak yenn ci borom xam-xam yi mais tabliq moom dafa mel ni kii din ko gën a taxsis ci yonent yi ama daawa yonent bi euh, ma ca kon day mel na sax liñ bëgg a wax daawa boobu moom mooy gën a làmboo parce que yonent ba ma nga ca loola olama yi ma nga ca loola kon ñaar yooyu boo leen doon séparé mën nga wax lool waaye léegi bing leen séparé dégg nga maam euh, ci wàllu luxa ci wàllu langue war nga leen a séparé istilaahiyan ci mooy wàllu boo ko doon yaatal. boo ñëwee ci terrain bi. boo ñëwee ci terrain bi. xam nga léegi sànq ci ginnaaw. daanaka li nu wax xawoon na leeral wàllu daawa bi. mooy nga woo nit ki ci li nga xamante ne moom la yàlla tëral ci mu topp ko ca la mu war a topp ak mu ba lan ko tere daanaka boo ko xoolee loolu na ni liggéey ñun ñëpp. Mm-hmm. yàlla nee na nii. yonent bi nee na nii léegi nag am na koo xamante ne bagage yooyu nag da nga ko ko war a jotal dafa sori da ko gën a jege da nga ko ko war a yóbbul moo tax nga dégg jamaatu tablir mu doon kuréel goo xamante ne bu boobaa nag dafay laaj nag yeneen wasaa'il même seen wuute day dem ba ci wàllu matériel yi laaj na déplacement mhm. parce que léegi dafa laaj euh, dégg nga maam nga fekki waaja fa mu nekk loolooy waral léeg-léeg danañ koy gis ñun nga gis ay pakistaan yu ñëw ci dëkk bi ñu ne la ñoom dinoo ñëw pour tabliix moo ne seen réew nga fa wàcc doon ko kon tabliix mooy nga jottali ko nu mu gën a sore wasaa il yooyu nag mu laaj problème la ba tax na ñun boo ko xoolee suñu réew daawa bi lan gën a taxawoo lan gën a itte lu ko waral mooy bee dafa laaj dégg nga maam ay moyen te amuñu ko. te moo ne ñaar yëpp lan ñu sant en tant que jullit mais bële dafa am lu mu laaj te la mu laaj ci boppam boo ko xoolee kan moo ko war a taxawee kan moo ñu ko war a jox. loolu tamit gis nga ko dafay pose problème bu mag a mag ci wàllu euh, tablir bi gëmal ne tablir laaj na euh, dégg nga maam jotal mbir mi nu mu gën a sore ak foo ko mën a kii bu doon ne euh, daawa bi tamit mën naa ne daanaka ci ngay njëkk a doore ci say aqriba ñi la gën a jege waaye loolu nag buur bi subhanahu wa taala dafa ne woon nan ko soril balix bi ma unzil ilayka min rabbika waxoon na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jottalil li ma wàcce ci yow mu gën a dem jottali ko hmm. kon bii da koo def ci barab bi waaye nag loolu nag danoo bëgg nag mu tas parce que yónni wun la rek dégg nga maam ngir benn barab boo xoolee euh, buur bi subhanahu wa taala euh, xawmu bu ne xeet gu ne dafa amoon kum fa yónni gis nga tabliix foofu dafay feeñ xeet gu ne am na kum fa envoyé envoi lay doon mën nañ ne envoi spécial yow ma yóbbu la dëkk bi kii ma yónni la dëkk bi nii ku ci nekk nag fa ma la yónni da nga fay liggéey la fay liggéeyee mooy da leen di woo waaye nag la ma la waxoon jumtukaay ya ndax am nga ko parce que nag ñëw ci réew bëgg leen a woo ci mbir gis nga ne ko buur bi subhaanahu wa taala doxale ku ca nekk dana la jox jumtukaay ba nga xamante ne waa réew ma moom la ñu gëm yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wa salaam bi ko yàlla di ko yónni ci na jamono jooju xeet googu njabar la nu gëm moom rek la nu gëm moo tax yàlla ba muy yónni Moussa mu jox ko ca la nu gëm te mooy yatu Moussa ba yàlla na ko yaa ngi dem ci ay nit ñoo xamante ni lii la nu gëm mu jox ko yet wi taxte na kit nit ki boo koy woo la nga xamante ni moom la gëm gëm ne lii amul kenn ku mën lu ko gën a kawe yàlla nag yónni la fa jox la lu ko gën a kawe bu ko defee nga gën a mën a wax ak ñoom kon la ma la waxoon ci tablir gis nga ko financement ba ci ànd ak la ca war bu yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam Moussa sànni yat wa mu doon jaan su ko téyee dégg nga maam mu doonaan yet te yet woowu bari woon na gis nga ko ay kiimaan yu bari te ñooña nag loolu leen gëmoon waaye nag bu Moussa ba moo gën a pur loola dafa bokkoon ci ay li nga xamante ne bu doon na njàngale li naan al wasail a taalimiya jumtukaay ci booy jàngale sax comme na ma la waxoon bu dee rek ci cadre njàngale joxe xam-xam ci turuqu tadris jumtukaay ba nga yor daf ko laaj ñun ndax sunu jamono ji amuñu ko gis nga tamit euh, yonent yàlla isa jamono wàllu metsin lañ gëmoon <laughs> wàllu médecine xoolal yàlla ba mu ko fa yónnee da ko ne yow comme que ñoom li nu gëm mooy wàllu euh, paj dem na nu ba gëm ne ku mën a faj euh, dégg nga maam ku leen raw amul yow naa la jox raay mu sedd almasih mm-hmm. ne ko far nag sax yow naa la jox lu gën a pur ka nga xamante ne moom la ñu bëgg a faj bu feebaree li gën a doy waar kay man naay def sax na ngay dekkil nit ka ci sama kàttan gis nga kon jamaa yooyu nga xamante ne buur bi subhaanahu wa taala da leen envoyé euh, gis nga ko dinoo sori xaw ma bu ne yónni na fa mais am na lu mu la àndal ba ci euh, su ma ko doon topp ci yonent yi day gudd waaye dinaa ku tënk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga yàlla bi mu koy yónni Qur'an la ko jox quoi mooy jamono jooju ku mënut a wax bokkoo dafa fekk jamono joo xamante ne arab yi ñi ngi gëm wax amoon nañ ay marché yu bari ay suuqu ukaz yoo xamante ne diñ fay daje di def ay way di def lu ne ñu xam ne ñoom wax la nu bëgg buur bi subhanahu wa indi quran ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay jox loo xamante ne gaa yii nga xamante ne wax ju neex ak wax ju yéeme la nu gëm ak wax ju matale benn aaya mënuñu ko ci indi gis nga ko arabe sax jéem nañ ko musaylimatul kazab alfiilu wa ma adraka mal fiilu lahu bun asilu xam nga loolu ma doon jéem a tontu ma nga doon jéem a toppandoo eh, dégg nga maam eh, aaye bi naan alqaari eh, atum alqaari a mais ndekete Qur'an bi mu ko doon jéem a toppatoo ba teg ni riime na ko wax na ko mu neex ndekete madd mun ba ca boppam du dara parce que ban ko xoolee dafa ne ñay soo xamut luy ñay ma xamal la luy ñay foo ko fekk day am génn goo xamante ne gu cosaane la génn gu gàtt loolooy lan xam nga kon ñu wëlbati ko ndekete li ñu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn aaya ci boppam boo ko ci déggee day mattale kon quran ci boppam mun ba ca boppam la ca biir la mu làmboo ak dégg nga maam euh, maan euh, ak euh, zahir bi yépp moom la jox yonent bi alayhi salaatu kon gis nga mhm. muskilatu tabliir dana feeñ ci ñun mooy tabliir ci boppam am na lu mu laaj moo gën a sori moo gën a matale waaye ay jumtukaayam financement wam moom moo gën a bari. jërëjëf euh, oustaz Pape Mor Diakhaté bu la déggee feeñalal nga ñu ñaari baat la daawa muy woote tablik ak jotal nga wax ñu ne a daawa juz'un min at tabliix daawa maanaam benn parti la ci ak jotal waaye wan nga ñu ne tabliix buñ ko seetee yonent ñoo ko gën a ñoo ñoo ko féetewu mm-hmm. ñun ci des ñoo ca nekk nga ne buñ jëlee li tax tablix jafe dafa laaj mooy maanaam ay outils yoo xam ne wala ay escalier yooy jaar man ca yegg bi ñi ci bëggee loo xam ne résultat dañ koy làmb daj ko dañ ñuy jox parfois délégation pakistan yi jógee ko Pakistan di ñëw Sénégal ñu tuddee leen jamaatu tablix xam nga ku ku natt fa Pakistan nekk ko fa déparé dagg bi avion ñib si Dakar ñëw Dakar te boo fi ñëwee logement dana la war dund dana la déplacement dana la war kon waajal nga kon boo tolloo boo tolloo ci ko xam ne nag eh, dangay ngay kooku kon doo mën a bokk ci groupe booba eh, nga feeñal ñu ne métier la moomu boo xam ne eh, yonent yi nga ñu ngi ko tënk ñaare bu leen yàlla daa feeñal luñ mel kenn ku nekk bu lay envoyé dalay envoyé lu niroog la gën a fés ci sa ñam lay yónni nga jox ñu yonent yàlla Moussa bi ko yàlla di yebal ci nitu Firawna booba njabar moo fa notoon mu jox ko meraaka la mu niroog njabarka du njabar muy sànni yet wa ñu foog nekki ab jabarkat la mu war na seen jaan ya gaa yi sujjoon amana bi rabbi Moussa wa Aaruna gëm nañ jàpp bi yonentu Yàlla Moussa ak borom mu xam ne kon bu italasi kafar lii du jabar nga jox ñi misaal ci yonentu Yàlla Insa bi ko yàlla di yónni ci aw nitam fekk leen ñoo avancé lool ci wàllu paj ma eh, lu ne mën nañ caa def yàlla na ko dama lay defal li ñu tuddee raay mu sedd wala sax ma jox la lu ëpp loolu mhm. lu kenn mës sa def muy dekkal nit da ngay dekkal doomu aadama foofu xitale si kafar kon foofu mooy njolaxtan la nga àndi yónni yàlla muhammad salawaatullahi wa salaamu bi ko yàlla yónnee ci aw nitam fekk leen ñu doon ay nit wax kat di mën a gën a fasaa làkk arab ihjaasul quran ihjaas daal di ñëw yàlla na ko dama lay indil alquran mu nekk ihjaasul lahum maanaam boo ci indee benn aaya danañ gàtt pour indi ko loola moom nga indi ne musalil mu kasaab bi yonent bi dikkee di wax arab yooyu alquran yooyu dafa jàppoon ne war na mën a indi luñ mel moo andil ko ci fiil boobu andi ko ci beneen aayit ci daafi naatu dafnan yu demee yoo xam ne mais lépp wuñ ko seetee dañuy gis ne kon du noon kon mel na ni eh, bu ci man tikki doon wa ak tablix yaataaju it xaan dafa laaj xam dëgg laaj xàmmee laaj ràññe laaj man koo defit nag uh. tey mais laata ma lay jox kàddu gi ba fàttali bokk yi ñuy seetaan koo xam ne am na question bu muy laaj wala mu am lu muy yokk ci li ñuy wax wala mu am lu muy moo xam daal eh, man na jokkoo ñun ci 88 628 11 22 ñu ñëw ci ñetteelu laaj bi bëggoon nañu almuhawiqaatu saatiya mbir mu ne am na ay gàllankoor ma gàllankoor dëgg dëgg jëmmi gàllankoor yi nga xam ne moo am ci discours daawa bi ba li ñuy mébét ci moom ñu ko am amuñ ko lan la waaw euh, tuuti rek hmm. euh, damay am lu may تعليق تعليق شي لاستاذ واخ اي نعم تي ديغانتي تبليغ اك دعوه دعوه أه، باسكو أه، موي كوكو بنين افير لا مي مهمه التبليغ ا أه، لي دعوه لاج لاجوكو تي كومبيتانس باسكو يونتي دفني بلغوا عني ولو ايه ولو ايه بني ايه رك بوكو خامي compre kii ko yonente nee na jottali ko mokkal naa benn xadis mën naa koo wax keneen ku koy mokkalul donc yooyu loolu mooy tabliix mooy benn mbir nga xam jot ga ko am na ku ko jotul nga jotal ko ko kantaan ak jumtukaay yi kooku moom bépp ma bu nekk laaj na ay wasaa'il bon bu dee lislaam moom laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa boo ko mënee dem mu ngi mel ni aj màkka rek man istataa yeneen yañ cee kii nag Euh, kooku dafay nekk ci sa sa sa sa awlawiya masalan euh, ka nekk Pakistan di dund Pakistan am na ñoo xam ne macha allah aaya boobu mu mokkal ba di ko indi fii euh, am nañu ko fa mokkalul xëj na mu loolu itam bokk na ci mu awiqaat yi nga xam ne yaa ngi koy wax muy ñàkkaa xam priorité. al awlawiya al awlawiya ci suñu daawa. Hmm. ñàkkaa xam priorité bi ci li nga war a commencé hmm. benn. ñaareel ba ñàkkaa xam sa public bi nga xam ne moom ngay waxat ñetteel ba taamim daawa bi jàpp ne luñ la laaj rek salma chita luñ la laaj rek war nga cee mën a tontu man damay tiit bu ma gisee benn mbokk boo xam ne ci duaat yi ñu di ko laaj ci médecine mu di ci tontu wala muy indi maalumaat yoo xam ne malomat euh, médecine la wala maalumaat yeneen yoo xam ne wóor na ne moom xamu ci dara benn lu mu liir la rek te yow lii ngay wax am na koo xam ne ci la jàng ci la la xam donc yem ci fi nga xam ne euh, lool nga xam loolu nga man loolu itam bokk na ci li nga xam ne lislaam soxla na ko lool waaw yàlla sopp na jaam boo xam ne xam na kem euh, kemam kem taxaw ca mm-hmm. donc kon ci mu awwiqaat yi mooy gàllankoor yi mhm. daawa moom damay wax ne amul gàllankoor mhm. amul gàllankoor bu fekkee ne ci daay bi parce que dafa am jumtukaay yuñ la jox mhm. comme yàlla nee na udu fii lu amra al amr yaqtadil wujub wootel kon fokk nga woote war nga mun a woote mais yow mi nga xam ne yaay woote da danga da nga am capacité am muwaasafaat yi nga xam ne daa daa war nga ko am su ko defee nag euh, sa sa obstacle bi nekk sa kanam mooy kii gëmul li nga gëm te nee nañ la nga woo ko yàlla nee na bil xikma xikma nag mooy wasaa'il yi kon donc mu awwiqaatu daawa moom du fi jóge ci cadre waa ji nekk fële nga nekk fii bugg ko oo mu ñëw am ma nag risalatu al islam yéenu ko yooyu itam euh, ñàkkul am na ay jafe-jafe jafe-jafe yi fi lañ ko fekk parce que euh, boo xoolee siiratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa mu commencé ba jafe-jafe yooyu taxoon leen ñu gàddaay jóge Makka ñëw Habash. oustaz am na ku ne ci yoon ñu jël ko Babacar njaay cees allo. waaw. allo. waaw sëñ bi na ngeen sant bu baax Babacar. sant bu baax di leen gërëm. di rafetlu émission bi. ah kay. waaw di am na mu bëggoon a laajte. waa bisimilah. waaw dama man ñaare euh, su ma su ma ne di tuur ndox. Hmm. ma ni. ñoo ngi lay dégg waaw. waaw su ma jonkoon ne di tuur ndox ñaare li génn du bari foog ma taxaw pour ndox mi mën a génn. ma doon laajte loolu ba xam araam na mu la araamul pour taxaw di saw taxaw di tuur ndox. taxaw di saw. waaw di tuur ndox feeg taxaw doo mën a saw. waaw. Hmm. waaw baax na dañ ci indi leeral waaw d'accord jërëjëf. jërëjëf bisimilah. waaw dama ne. Hmm. Euh, mu aw yàq gàllankooru daawa. bu fekkee ne am na. moom dañ ko mooñaale ak daawa. Hmm. waaw mooy euh, ki nekkul ci li nga nekk nga war ko oo loolu moom am na ay jafe-jafe. Hmm. waaye nag jafe-jafe yooyu yëpp xekma bi la yàlla jox mooy sa saafara. waaw parce que euh, nekkul ne dañ laa force par force dafa war a dugg ci diine ci déedéet waaw ah. eh, sa njub nekkul ci sa loxo yow innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kon waroo atte ñi ngay woo waaw ah, ah? maanaam atte gaa yi naan ki aljanna la jëm sawar du waru la kooku sax boo demee dañuy jàng suñ téere yu mag yi dañ naan waman yamut walam yatub an wisrihi fawid ila allahi jamia amrihi waaw ah. képp koo xam ne sax génn na ci àdduna nga gis ko ba muy ba muy génn nga xam ne kii moom ci ci ci ci ay caaxaan la doon dund bul wax ne mukk mu nga safara sa yoon nekku ci sa yoon ci parce que lu tax euh, yàlla yëg bi nga koy yëg ci sa xol kooku sa diggante ak moom la rek te xamuloo sax ci aaxiru xayaatam fan la tolloog boromam parce que yonent nee na amul benn jëf boo xam ne moo lay dugal aljanna waaw ah, lu dul ku yàlla baaxee rek kon mbir mi dafa am loo xam ne xukmu shar'i la mooy sharia amoo la teralal lii pour organiser dund bi kanta nag àllaaxira kooku mbiram àllaaxira ci mbiram su suñ loxo borom la nekk kon amuloo droit forcer nit ki ne tey nga nekk ab jullit tey nga nekk masab kasa tey nga nekk nangam déedéet waaw parce que loolu euh, loolu daf may may sax hmm. ma dugg ci benn méthode boo xam ne donte xaar xam nga suñu mag ñi hmm. dafa am dañu amoon méthode méthode boo xam ne euh, gis naa ne euh, amul méthode bu ko gën. Hmm. ci sama kooku suma conviction la. waaw sa sañ waaw hmm. lu tax parce que lépp dafa dëppoog dund yonent salaa salaam. Hmm. xam nga dafa am lu ñuy tasawuf. am lu ñuy wax irfaan. ñoom ñaar bokkuñu. am lu ñuy wax philosophie. ñetti kàngam yi dafa am philosophie mooy ki nga xam dafa taxaw bugg xam ndax am wala amut moom réponse la soxla mu dem ci dem ci dem ci dem ci gis amut wala mu amna am na réponse bi la taxul mu ko kooku ci xolam la xelam la la mu ngi professeur bi nga jox ab ab ab ab ab mu mu tasawif nag dafa gëm ne yàlla am na mu di ko jiixaat moo tax boo nekk boo ci sooboo moom la ñuy wax saalik kooku doo dootoo soxlaati nit ñi dangay daw parce que ki nga ki nga jublu moo la gën a lépp moo tax dund mu tasawif dafay dafa dafa dafa dafay dafay da dàqu ci société ñi koy critiquer yépp mooy ni nga bàyyee li nga waroon a def ci société bi di dem topp loolu côté boobu lañ ko kii mais boo demee ba àgg foofu la ñuy wax irfaan loolu daf lay delloo si ci ci ci jaam yi nga xam ne mënuloo am yàlla lu dul ci jaam yi nga ñëw di ko di liggéey si nag jaam yi lu distance boobu nag euh, dund boobu nag méthode bi sëriñ si jëloon mooy bi ñu demee ba xam ne yàlla rek a fi nekk ñu dal di nekk nag ci wàll ci ci ci mission yàlla bi di defar jaam yi waaw boo ñëwee ñoom ñu nekk ay médecins comme ni nga xam ne am nañ docteur yoo xam ne ay spécialistes ci yaram lañ ñoom it ñu nekk ay spécialistes ci xol parce que xol dafay feebar am na xol yoo xam ne comme ni ko lu ma bu tasawuf waxe xol yoo xam ne dañoo juutu ak xol yoo xam ne dafa teju ak xol boo xam ne dafa jaxasoo lu baax ak lu bon a ci ne ak xol boo xam ne dafa set dara nekku ca ñetti xol yi léegi boo ñëwee ñu xool ne yow mii sa xol bi day feebar a ngi ci feebaru kiñaan feebaru nanga feebaru nangam la ñuy seet be naka lañ koy seetale buñ la buñ la bàyyi rek nga nekk ab nit looloo tax looloo tax ñañ fi defaroon ba léegi ñoo fiy defare jërëjëf eh, oustaz eh, Abdou Karim Sarr eh, oustaz bu ñu la déggee teqantalal nga ñu ne muhawiqaat yi ci laxwal islaamiye pakk yi wala gàllankoor yi bu ñu ko ci tuddee baax na uh-huh. bi ci njëkk mooy al awlawiya daf ñoo manqué maanaam léegi ñu li ñu waroon a njëkkee dañ ko du njëkkee uh-huh. da ngay war a njëkkee lëf da ko fa yel bandik dem la jël la nga mujjee la nga waroon a mujjee uh-huh. renverser mbir yi su ko defee mu jur problème nga leralal ñi ne ardiya manam fi nga wara koma fi nga ne sa moy sa terrain bi nga wara taxaw kooku it fa melni amuñu ko wala bok dañ koy jaxase leralal nga ji batay na ne da'wa da fay am ne ci da'wa bi généraliser ñëpp caricaturer len dugal len ci ben qafasul ittiham lolit mu nan lo loo ne lu yaq da'wa bi la te lol nga ne doonut lu ñuy waron ndax aaya alquran bi daf ñu wax ne uddu ila sabili rabbika muy fi'lu amri muy feelu feelu am feelu mhm. nga ne aaye boobu nag daf ñoo teg ay méthode waaw bam ñoo xam ne uddu ko daf xam-xam dafa daal di taxaw mhm. wax ne bisa bili rabik mhm. bil hikma wala maw isatul asana nga ne méthode yooyu mu ñu jàpp nag ñun dañ ko fay def yàl bandin dëkk jël ba ci mucc pare ta amim ñëpp daal di caricature leen sañ seen leen atte diw ñii aljanna lañ jëm ñii sawar lañ jëm tang na nga loolu kenn wuru ci am sañ-sañ bi feeñal nga ne euh, am na ñetti mbir yu ñoo xam ne danañ am suñ mag ñu démb ci loolu lañ nekkoon bala la ñu am ci résultat ñu am ko muy euh, xam-xamu sufi sufiyanke yi nga ne ñetti yooyu nag dañuy dajee léeg-léeg philosophie irfan tasawuf philosophe bi moom dafa xëy taxaw ne yàlla nekkut moo indi li ñu tuddee méthode Descartes xëy ne à euh, chaque li luusul ila xelmil yaqin lu mënti ko doon da ngay taxaw deg weddi ko ne amul ba ba nga cee amee lu laya euh, nga ne irfan sufiyanke yi nag ñoom dikk nañ dañuy defar jikko bo defaree jikko ba borom don nit ku sel safi xamne amatul lu bañal nit lola moko yobbu ma ag ci xam-xamul herfan bo xamne dana mën a écarter gis nga bo ñewé ci point bi nga tuddu léegi histoire daf ñu ne euh, Saladin al Ayubi bi mi dem di def arul Quds gi nga xamne tay mom la Trump wax ne moy capital Israël dafa départ dajeeg ben jaamu yalla bu mak yam yalla bi nako fo jëm mu ne ko damay dem jéem récupérer xursi ci loxoy yi ñi ko yor andi ko ci loxoy jël ni mu ne ko doo ko man mu ne ko lutax mu ne ko gaay yi nga wara a ñu wara a eh, libéré dafa am lu leen manki xol yi des set demal nga raxas xol yi pas-pas dafa nek kañaan na fa bañante na fa bu jexé bu ngeen démé bu ngeen démé libérer xursi mu ne mu gannaaw dindi ci ñom kañaan dindi ci ñoom mbañeen dindi ci ñoom xeebante dindu ci ñoom ak dem libéré Quds tey nag ñun problème boobu la ñu am tey. Mm-hmm. tey Cheikh euh, koy jox. naa c'est-à-dire foofu lu am solo la. Mm. parce que ñun euh, suñu daawa bi. Mm. ci ay ay ay ay ay ay la ay mode. <laughs> Euh, nekkoon nañu ci jamono joo xam ne. Mm-hmm. intégriste. Mm-hmm. islamiste. ñëw ci jihadiste. léegi ñu ngi ci wasati bon mu mel ni l'islam da ngay dem ba mu yàgg nga am ne li l'islam nga doog a comprendre l'islam fi mu nekk nii jamono ji ñu todd suñu slogan ñun du aati mooy wasatiya mu mel ni ñu ngi doog a xam lan mooy wasatiya ñu ngi doog a xam ne lan mooy l'islam yi ay tur yoo xam ne dañu ñu ciy nax wasatiya loolu <laughs> tam na ko oustaz am na ko ne ci yoon wi ñu jël ko allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi santal di julli yoon sala sala mbokk mi kan la maa ngi tudd Moustapha Sarr. Moustapha Sarr. waaw. Moustapha yow la ñu ah, ñu ngi leen di nuyu di leen wàcce seen wàccuwaay. xëy na. di am mbégte si tomb bu mag bi nga xam ne ubbi ngeen ko. Mhm. di ko jàngat. Mhm. muy li jëm si wàll ab daawa. xëy na. muy woote jëmale si yàlla. Mhm. nga xam ne suñu waxee daawa rek si côté lislaam war nañ xam rek mawdu daawa mhm. mooy daawa lu ko tax a jóg mhm. nga xam ne yàlla kese moom moo ko war a lal mhm. parce que bu ñu waxee daawal islaamiya rek loolu kon loolu leer na yi ngeen di jàngat nag yu gën a bari man bi ma déglu waxtaan bi gis naa ne waxtaan bi war ngeen ko gën a baril gën ko yaatal ngir nit ñu ba mën nañ ci gindeeku su fekkee jaare lañ ko yoon mooy xam lan mooy mawdu daawa ak lan mooy ahdaafu daawa mooy jubluwaay xam xasaisi surtout nag mooy muqawimaatu daaiya mooy mbir yi nga xam ne dafay dimbale ki woote pour woote mun a am najaat mhm. te danaa loolu mooy jubluwaayu émission yu mel ni ay naam xam yooyu ay jikko la yoon li jur na yenn ay yoo xam ne dafay jàngale xam aussi mooy almadu wa asnaafuhum hmm. mooy ki ñuy woo ak façon ñi ñuy woo parce que léeg-léeg kii woote su xamul ñi muy woo rek ni leen boroom xam-xam yi jàngale nga xam ne kii day nekk muslim jullit dañ koy woo hmm. mais foofu ñi jàngale daawa dañuy wax si buntu bi ñaari façon jullit ñoo am mooy al muslim al munqaad koo xam ne dafa woomatu si njàngale lislaam hmm. kooku foow nga xam nan nga waxeeg moom am na koo xam ne muslim mais nag moom day mooy yàlla day def naka su dul noonu hmm. kooku ni ngay wooye ki nga xam ne day góor góorgóorlu si yoonu yàlla ak ki nga xam ne day mooy ñooñu seen maanaam yo ñi leen di wooye du bokk am na si biir euh, maanaam ñi ñuy woo mooy ahlul kitab ñooñu aussi il faut nga xam maatu ahlil kitab mooy seeni màndarga beneen biit ak aussi asalibu daawatihim yan yoon la ñuy jaar pour woo leen yooyu yëpp lislaam da ko jàngale am ñoo xam ne ay munafiquuna lañ am na ñoo xam ne maanaam ñoom dañu nekk diggante lislaam ak leneen lu dul lislaam loolu nag pour xam ko lol motax ki wote il faut mu nek borom xam-xam mo xam léegi nak munafiq bi il faut nga xam simatul munafiqin ak asalibu da'watihim ñoo ñit du bok ni ngay woy ahlil kitab du bok ni ngay woy ak juliti amna na ñoo xam ay mulhidun lay ko xamne gëmul yàlla gëmul yunus sallallahu alayhi wasallam koku bokay wo aussi il faut nga jàng borom xamam yi ñu doon jaar booy woo ñooñu nga xam ne ñooñu dañuy soxla adilla aqliya balaa adilla naqliya euh, maa ngi bañ a jël temps bi mais tomb bu mag a mag ngeen tànn mhm. yal yàlla may tawfiq si njàngale bi ñu ngi nuyu Oustaz yo jazakallahu Cheikh Moustapha Sarr maa ngi door a xàmmee sama waaj kii sama waay la moom mhm. <laughs> Cheikh Moustapha Sarr yaraax mhm. euh, alf sukran yaa sayidi Eh, kon eh, gannaaw boo xamee ne jógee nañ ci sas Abdul Karim Sarr gannaaw bu mu defee taaliq boobu eh, Pape Mor ma del saat ci yow muhawiqaatu daxwal islamiya azatiya maanaam gàllankoor yi gën a gàllankoor daxwal islamiya wala rëq-rëq yi nga xam ne moo tere ñu mën a jot résultat boo xam ne nga koy lamb daj ko nooñu ñu koy tuddale jërëjëf ak di rafetlu mbokk mi dugg sànq am na waa ji fi woote woon léegi na Babacar Ndiaye xam naa bokkul ci thème bi sax waaye boo ko ci mënee gindi waaw nee na moom day def doon dafa doon waa joo xam ne buy saw. Hmm. bu jonkanee du mën a saw taxaw rek lay mën a def saw ndax loolu lu war a mën a nekk la. waaw war na mën a nekk. rawatina ba nga xamante ne euh, li fekk taxawul. du mën a saw du ko mën. xam nga hmm. kooku lislaam moom. Hmm. du ko kii et tamit jonkat baak taxaw ba moom wax dëgg yàlla dafa tollook ci tegginu saw. soo koy def boo ko mënee nga jonkan. moo gën mais nag par force nag. nga jonkan wa ilaa doo soow ba nga demee ba tëju ci sa biir toilette yow nga nekk fa yow rek xëy na ci teggin soo mënee jonkan waaye kooku dama koy dalal xelam ne ko taxaw googu muy taxaw di saw dara nekku ci rawatina ki nga xamante ne li fekk taxawul du mën a saw kon boog kooku loolu lañ koy tontu euh, di rafetlu xalaatu mbokk mi nga xamante ne euh, li mu wax nag li muy junju hmm. mooy euh, mawduwaatu daawa dafa bari kenn mënuta waxtaane lépp lépp lépp lépp booy seet dafa am loo ci jukki xëy na la mu waxit booy waxit fokk nga laal ko parce que daafu daawa fokk nga laal ko mënuñoo waxta laaluñu ko li nga xamante ne moo tax jóg euh, nit ki ci woote googu ñëpp xam na ne euh, la ci ëpp solo mooy jël nit ñi teg leen ci yoonu lislaam wax leen li nga xamante ne moom la yàlla digle wax leen li yàlla tere ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam fexe ba nit ñi tegu ci yoonu njub loolu euh, kon da ngay gis na que bokk na ci ëhdaaf yi ba tax na nuqaat yooyu mu wax tudd yu am solo yu am solo la solo la na ko ci yàlla fay amiin euh, gis nga nag gàllankoor yi sëñ bi hmm. euh, mën naa ne fu nekk ak i gàllankooram hmm. mais ñun hmm. sunu gàllankoor ñun ñi nga xamante ñoo nekk ci saaxa bi ci terrain bi di woote te buñ ko waxee xel li dana dem euh, ci ñiy woote ca rajo ba ak ñay woote ca tele ba daanaka boobu euh, dafa mel ni ki boobu la ñuy gën a euh, traité fi mu ne nii hmm. xam nga léegi il faut que ñu bokk benn liggéey il faut que ñoom biir ñu ñu ñu ñu déggoo maanaam jikko yi day dellu ci jikko yi Euh, ñaanante ba dégg nga maam xeexante ba yooyu il faut que dégg nga maam mu doon loo xamante ne daf fii jóg bokk na ci gàllankoor sànq nettali nga xisa bu am solo ke bëggoon a dem salaa Salaadin al Ayobi mais la tax sottiwul moo ne kooku mission boo mu doon def mission diine le mais din ko dee pour ma préciser sax xam nga lu tax ma tudd xisa bi waaw Salaadin al Ayobi mina suufiyiina waaw loolu tax ma préciser ya ko pour ne oh, ab sufiyanke la woon maanaam dafa defar gitu ya. mais dafa ne nanu nanu raxas xol yi voilà bu boobaa kon boog si sunu mu awiqaat kan, il faut que ñu raxas xol yi xam ne hëdëf eh, bi ñun ñëpp dinoo dajaloo bëgg a dem Dakaru am koo xamante ne da koo jaar Colobane kii jaar ko usine waaye benn barab ba la ñu bëgg a àgg il faut que noonu ñu déggee ko ñëpp nga xamante ne ñoom ñooy eh, taxawee muhima bi coowoo laak bañante baak yooyu fokk mu dañ ñaareel bi xam nga tamit ñun dinoo war a jottali rek li yàlla wax ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax fa in tanazatum fi shay farudduhu ila allah wa rasul sunu demee ba gis na ñi ngi xëccoo ci dara nan ko delloo ci yàlla ak ci yonent bi kon jël mbir yi di ko delloo faneen wala di coowoo jaru ko quraan mi ngi fi ak sunna beneen point bi te mooy bi ci ëpp solo gàllankoor mooy ñun danoo war a jottali waaye ñun waruñoo dumawaate waruñoo lakkaate waruñoo dugal àjjana waruñoo génne ñun mbir mi dafa leer di ñëw firiloo yeex bi nanu wax li am mu jeex mm-hmm. mooy yàlla dafa ne defal li lee moo ko yor mais ci lislaam yow mi def wàllu euh, taarix yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàgg na sukkandiku ci benn jëf ba dugal ci nit àjjana mm-hmm. ana kan mooy waajal maarakatu yarmuk mm-hmm. ñi ngi dem xare amuñu yoruñu ay fas yoruñu alal <clears throat> Ousmane ibnu Affan ne man mu ne ko wallahi garanti naa la aljana mm-hmm. Ousmane ibnu Affan moomu da gis ne que yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na ba ci yàgg mu ni jàkkat ji xat na ana kan moo koy taw si ana kan moo koy yaatal Ousmane na ko man mu garantil ko aljana al mubashiruna bil janna ay jëf la yoo xamante ne da koy def yàlla sukkandi ca dugal la àjjana kon dama bëgg a wax ne la mbirum àjjana ak mbirum safara moom yàllaa ko yor mais du doyen bee ko yore. <laughs> déedéet déedéet déedéet déedéet xam nga tamit euh, euh, day dellu rek. li nu waxoon euh, sànq ci aay bi mooy rek bil xikma bi nu waxoon. wal mawizatil xasana mooy dikkaat rek. xam nga nit ki boo koy xëccee dafa am noo koy xëccee doo ko xëcc di ko lakk ak di ko duma loolu yàlla moo ko yor le contraire dinoo war a dalloo xelu nit ki. teg ci yàlla moo leen dalloo yàlla moom moo ne dégg nga maam bu leen xàddi dégg nga maam ci sama mbaax yàlla moo ne man ki nga xamante ne dafa dem ba fees dell ci ay bàkkaar ba teg ne kenn soxlaatu ko bu ñëwee ma jéggal ko bu ñëwee ma baal ko ak tamit nanu bàyyi xel ne li nu naan yàlla dana jéggale bàkkaar yépp ba mu des bokkaale aha kay déedéet il faut que am luñ ca laaf su fekkee jéggaluwu ko ba faatu ba faatuwaale ko. maanaam bu dee ci bokkaale. waa ci bokkaale. ay ci xam nga din la daan yàlla dana jéggal mboolem bàkkaar ba mu des bokkaale. Mhm. ma ni leen déedéet dana ko jéggale dana jéggale yëpp ba des bokkaale bu dee da ko faatuwaale. Mhm. mais saxaaba yi yépp ay bokkaale kat la noonu avant ñuy dugg ci diine ba nu tuubee jeex na dugg ci lislaam kon foofu nanu leeral ne. du la jéggal nga faatu demee noonu bañ ko jéggale waaye am na bokkaalekat bu daan bokkaale jéggalu dugg ci diine kon euh, li may tënk foofu rek mooy euh, nanu xool ni ni waare nit ñi ci wàllu xam ne yàlla ci boppam mooy baale mooy jéggale yàlla tamit mooy mbugale waaye waaraatekat bi ci boppam bu mu jël mukk mbugal moom di ko ay sanction di ko tegal boppam yàlla day jéggalee mhm. bàkkaar bu ko neex yow mal euh, ma jox la beneen misaal bu gën a kii mhm. mais am na loo xamante ne moo tëj làmb ji hmm. bi xeyri xisaab am na yow mal xiyaam hmm. am na koo xamante ne yow mal xiyaam da ngay ñëw dim ne woon buur bi subhaanahu wa taala hmm. day xool sa jëf yu baax ak yu bon su dee bu baax bi mu ëpp mu dugal la àjjana mm-hmm. waa léegi ana bi reere xisaab <laughs> ki nga xamante ne kenn oustaz ñu ngi may xamal ne waxtu yi yan kàddu tënk nga tàggatuwaale yàlla eh, eh, jërëjëf di dellu di rafetlu eh, jataay bi mm-hmm. lépp nag loo xamante ne dëng na ci nanu xam ne mbirum doomu aadama la doomu aadama mooy juum mm-hmm. lépp lu ci rafet na nanu xam ne tawfiq min Allah la ak dellu di la sant comme ni ñu ko waxoon ci biddaay bi mm-hmm. ak di sant képp koo xamante ne mi ngi fii liggéey mm-hmm. di ñaan yàlla yokk kër gi parce que kër gu mel nii goo xamante ne euh, bokk na ci taxawaayam nunu euh, euh, tasaare daawa bi nu doon waxtaane mm-hmm. léegi loolu day doon lu am solo ak di am mbégte lool di fi dajeek sunu mbokk al aalim di Abdou Karim Sarr moom it wax dëgg yàlla jariñu nan ci waxtaan wi kon dafa mel ni kii Euh, ñun ñi nga xamante ne ñoo fi daje ñu ñett ku ci nekk jël nga njariñ ci kenn te loolooy daawa wax nga fi yu ma jëlee njariñ kii wax na fi te noonu nag la ñu jàppe ne xëy na ni ñuy déglu ñoom it liñ doon ñaan rek ñu jël fi njariñ wasalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Abdou Karim ñu jox la kàddu gi yan kàddu ngay tàggatoo ak yan kàddu ngay rafet lu waxtaan bi rek mm-hmm. di gërëm ñëpp euh, ñaari point rek laa bëggoon ñu bàyyi ko xel ci xitaabu daawa bi ndax xitaabu daawa yëpp ci alquran la ko jëlee te alquran dafa am muxkam ak mutashabi muxkam moom yu fassar ala alfawri ñëpp ko masalan buñ ne lii aaya muxkam la mooy mun nga koo firi ñëpp jëriñ mutashabi nag yu awwal ala taraaxi mooy jamono moo koy firi Euh, suñu problème nag. mooy léeg-léeg aaya yooyu dañ ci taxaw rek. maasale ci ñëpp maasale ci. Euh, beneen bi ma ci doon wax mooy ci wàllu euh, mustalaxaat yooyu. ay wasatiya ak yooyu. Mm-hmm. lu ci àggan ma contre wasatiya. Mm-hmm. mais rek man dama jàpp ne bu ñu comprendre l'islam rek xam ne diin wasatiya minal bidaaya man kañ li ma ci métti rek mooy ñu toog ba jamono ji ñu bugg def comme benn kii mu mel ni publicité la bugg a doon bon euh, di leen gërëm di leen sant di sant Oustaz euh, Momar Jaxate wax dëgg euh, di nuyu suñu góor ga wax di suñu papa muy ku ñu sopp di ko ñaanal yàlla na fi yàlla bàyyi asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne ñi ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko ni lu ci manque ci matali ñun ñi ko doon def la ñoo ngi leen koy jéggul ñoo ngi dellu gërëm suñu invité oustaz Abdou Karim di ko ñaan yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla ko yàlla de fi misaani asanaat yi di gërëm suñu invité Pape Mor Diakhaté di ko ñaan yàlla tawfiix di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur de son di gërëm waa si bi di gërëm caméraman yi di gërëm ñi nga xam ne ñooñu féete woon ci wàllu éclairage di leen jox rendez-vous dox daje àjjuma bii di ñëw insha allahu mawlana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه بالحب